Tafa. ah sama waa ji. mais seen taawun bi changé na. sama waa ji namoon naa la de. barke non munoo ma raw fa jaar ba raw ma. mais noo def naka réew ma ak koor gi. non réew mee ngi fa. di def na naka seddaay bi foofu. ay sedd. mbaa koor gi sonal leen foofu rek. waaw ah. xam nga kooru bitim réew rek moom mettiwul noonu daal. comme que defuñu dara nañ dem corniche ba rek ñu dem bu ñu foofu ñu gën a toog di waxtaan bu baax a baax. comme que namante nañ. corniche ba yaa ngi may wax fu ma fu ma xale waaw nañ dem. ko defee maam yu ma la ko wanaale sax. ndax hmm. xam naa ni yu bëri réer na la réer na la ci réew mi incha allah. sama waaj namoon naa la. barke laa. Ah. fooy jaar ba raw ma naa la. dem si wër rek toog ba ñu ñëwaat ci réew mi. ah ah loolu yoon la yéen it. sans waaj te colin gi moom lii de fii doo nga la arrangé de. xam naa ne bu ñu demoon moom diñ ma sonal ci woo sapeur boobu moom. waaye da ñàkk gis xale. Ah. moo tax yónnee ma ko glace yi. Mbadou. waaw <laughs> fii dina la arrangé. fii moom doo yëg dara ci tàngoor wi ngay yëg xam naa ne instant bi incha allah. oui mais fi def waaw lii président de la république moo ko fi def fii dafa bokk ci programme aménagement corniche ouest bi mu bëgg a def fii. fii lay tàmbalee jëm ba Ngor fii pare na nag mais étudiants yi ñu ngi leen di defal foofu ci université foo xamante ni nii dinañ fa mën di toog di réviser ak yeneen activité yu mu mën a doon yoo xam te bëgg nañ ko def est-ce que comprendre nga li mel nii mooy dem ba Ngor wala lu ko dàq fii la tàmbalee mais day dem ba Ngor nañ dem ci balançoire yi bu ko defee ñu toog ko waxtaan man de fi ma jógee fi ma jógee fii xàmmee waaw macha allah président

lii moom bëgg naa si trop trop trop trop trop trop sax gis nga tee da ngay dem ba ci kanam ne nga wàcc ci xeer yi du genre nga def photo wu def selfie te la sécurité dara du la te gis nga macha allah man mhm. pont yeeg tali yi may gis si dëkk télé bi ah, bu ma nekkee fee mhm. yooyu fan la yaa ngi doon bàyyi xel bu baax gisoo oto pont Lobat Fall bi ñu romb léegi waaw fa lañ jaar croisement Cambérène bu bees bi ñu inauguré bu dara doole croisement ak na mu daan xatee gis nga bi ñu fa rombee léegi sonnum sans problème dañoo ñëw rek jàll boo jaaree ci VDN bi autopont Yoff mooy hôpital Philippe Badiguène Senghor waaw autopont ba defaraat nañ ko boo ñëwee fii Saint-Lazare ci cimetière chrétien yi. bu xam naa autopont cité kër góor gi. autopont mi ngi foofu. fu waay bëgg dem rek da ngay dem sans aisément. te dara du la mais baal baal nañ biir baal yi beeg yooyu. yamul ci Dakar rek de. Sénégal wërngal képp. fépp fu nit amoon jafe-jafe pour dem ak dikk rek président mi ngi koy teg loxo. mais loolu est-ce que am na biir Banlieue. Kër Massar am na fa. Kër Massar. pont Kër Massar comme Dubaï te li nga ci xam bërki démb rek inauguré nañ pont Marsassoum boo demee Foundiougne pont Nelson Mandela mi ngi foofu. xanaa gisoo tamit li ma loo fàtte wax suñu diggante ñu nag waa Gambie ni mu rataxee. gën a ratax. waaw dafa gën a ratax pont Sénégambie. waaw léegi Sénégal Gambie mutul bag bag dafa sori ñun xam bu njëkk Casamance danga nga dem fanaan ci yoon bi léegi da ngay ndékkee Dakar añee ji Casamance pour te dire allah tawaay lu fi am dafa bari da ngeen a réere mbir li ngeen réeree bëri sama gars yi wax <laughs> mais dinañ leen leeral lépp bu soobee yàlla mënatuma wax <laughs> Sénégal émergent ngay am boobu waaw loolu ah, la deme da nga noppi nii da nga xam naa bu yàgg. li ma sol tamit dafa ngi ñëw pex maa ngi ñëw pex maa ngi ñëw. jëf ju fay.